Euh, alhamdulilahi rabbil alamin ci forum bi euh, ndax forum bi mi ngi laal euh, point yu bari ci affaire xale yi surtout xale yi nga xamante ni xëy en situation de difficulté en situation de rue tey jii gouvernement du Sénégal bi mu toppee bëgg-bëgg président de la République ministre madame Fatou Diané Gueye euh, ànd ak euh, directeur euh, Ibrahima Gueye ñu ngi jog ci nu ñu war a mën a def ba nga xamante ni xel xale yi en situation de rue dootuñu ko am te defe naa ni tey jii acteurs yëpp ñëpp ñiy participer ci protection de l'enfant commençant ci organisation yi comme ñi composé COSAED yeneen organisation institutions yi ñëpp tout ce qui acteur de la protection et de la promotion des droits des enfants tey jii ñi ngi leen di woo te ñi ngi continuer di ci waxtaan pour xool naka la ñuy defaat ba nga xamante ni xel la bu ñu defatee retrait des enfants dootuñu am dara ci mbedd bi waaw fi mu sooxee ak loolu noonu fuñ ko mën a teg ñi ngi ci parce que loolu laa wax sànq ñi ngi nekk di évaluer parce tamit dañuy évaluer à tous les niveaux niveau autorités gouvernement les institutions niveau communautaire au niveau aussi même au niveau familial qu'est-ce qui xale yi ba tey boo teggee teg xale yi ñëwaat toog donc ñi ngi nekk di évaluer ñi ngi nekk di rechercher te am nañ yaakaar ni bii yoon euh, dootuñu amaat ay xale Eh, comme euh, monsieur Damfakha ni mu ko waxee woon léegi euh, procédure yi foog ñu xoolaat ko ndax tamit yëkkati xale teg fii xale rek doyatul te gis nañ ni loolu rek doyatul te dañuy ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ci liggéey boobu ba nga xamante ni xel la dinañ ci am li ñu bëgg. waaw waxtaan bi dañ ko def pour que ñi nga xam ne ay kilifa lañu te am dogal ñu wa gën leen. wax ñu gën waxtaan ak ñoom ci mbir yi pour ñu gën a ñaax ci mbir bi xam naa ni sax ndimbal am na waaye ñun li ñuy tuddee plaidoyer dañ koy jëmale sax ci kilifa réew mi mu gën a jàppale kuréel bi nga xam ne kuréelu bi am protection mu tamale ko sax ci ministère en charge de la protection parce que moom mi nga xam ne moo nekk di ministère bëgg jàppale xale yi moom si boppam nafam bu bu duuful du mën a jàppale nit ñi donc plaidoyer fa lay commencé ci njiit yi ñoom ñu yokk koppoor yi ñu koy jox pour mu gën a mën a dimbali ñu ngi aussi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci collectivité territoire yi dugal ci seen loxo ndax gox boo nekk te xale nekk fa ci jafe-jafe yaa war a njëkk dugal sa loxo ci mbir bi donc collectivité territoriale yi dañ leen woo dañuy woo kilifa bi nga xam ne mooy président de la république sax mu jàppale ministère am d' abord jàpp nag door dem ci nga xam ne ñooy suñu partenaires sociaux yi euh, partenaires techniques et financiers ñu door a ci ñoom pour ñu jàppale ñu aussi plaidoyer bi jëmale ko aussi ci ñi nga xam ne am nañu ay moyen am nañu dara parce que euh, Sénégal am na ñu ama ah, bëgg a dimbali xëy na am na fu ñuy xamuñu fu ñuy jaar pour dimbali ay kuréel yaa ngi aussi nga xam ne bu ñu fa jaaree dinañ mën a xettali xale yi mën nañ ko jëmale ci nguur gi ci boppam dimbali ko dimbali collectivité territoriale mais dimbali aussi kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci boobu plaidoyer bi loolu a tax a jóg pour ñu xam ni aussi ndimbal nañ ci nañ ci dugal seen loxo ne ñëpp xàccandoo ñëpp ndóoróodoo bu mu doon rek bu buñ ko yemale rek ci euh, association yi buñ ko yemale rek ci nguur gi ci boppam nañ ko euh, yaatal loolu moo tax ndaje bi jóg